mbaa yéen a nga ca bu nu ko sampee ci réewum Sénégal ci yoonu septembre ba tey ji assemblée nationale bu Sénégal ci fitna rek la nekk bés bi la journée xeex bi am démb na ci assemblée nationale diggante Massata Samb ak Ami Ndiaye ñibbi bu coalition Benno Bokk Yaakaar mooy firndeel nag ne assemblée nationale xalu ndeef dëgg la nekk waxtu wi te nag li am des quoi tawul xuloo dal atte xeex maa la ko wax de bés bi la journée député Massata Samb moo ñibbi ci coalition Benno Yaakaar ni ko démb ci biir assemblée nationale wàll li tamit mbaa jàmm boo xam ne lépp lañ fa gis ndax bu député yi xeexul ñu ngay saagante ak xulo léegi nag dem nañu bay dóorante looloo tax ba jigéen benn bokk yaakaar yi nag ne cool yi nag jool yi démb ci assemblée nationale duñ ko bàyyi mukk mu sedd déedéet ndaxte nee nañu plainte liy jël lal ko ci kaw ndodal ñaari député yi ba noppi sàkku nañu taxaw jéggalu ci kanam askanu Sénégal gépp libération ne mbéj bi nga xam ne député Massata Samb fëgg na ko député Ami Ndiaye moo indi fitna dëgg démb démb ci mi kay di Sénégal Sénégal ay député gladiateur dëgg lak la ñu ndax yow ay député yoo xam ne saa xuloowul saagantewuñu rek ñu ngay xeexoo yëgle kaa bi ne député Massata Samb ak Mamadou Niang ñoo door député Amy Ndiaye démb ba hôpital la mujjee te ñoom jigéenu parlementaire yi nañu Amy Ndiaye ñibbi nag daa ëmb ko nag lépp ko daal ñaari député yi daal seen loxo génnu ci Le Quotidien moom soxna si kay démb hôpital lañ ko rawale ndax bi ko gars dumaa ba noppi a waaye Mamadou Niang fekk fa këdd ko ci biir ba moom démb député bi indi woon kàddu yu ñagasi ba indi coow lu rëy ci assemblée nationale démb ci infirmerie bu assemblée nationale na aji mbergaan kanute ci suuf soo ne député bi nag ma nga ca urgence te moom Ami Ndiaye daa war noon lor kon nag ñu am yaakaar dëgg ne lu waxul dërëm xuriw ko moom Ami Ndiaye ak li ëmb aji mbergaan kanute ne ne président assemblée nationale Amadou Mame Diop jël ay responsabilité ba mu Sénégal gépp laa lay wax nii le am démb ka ci assemblée nationale gàcce dëgëra ci réew mi gp yéene kaay ne xeex bi joli démb diggante député yi nekk ci l'opposition bu Sénégal ak député yi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar député yi kay démb dañoo mel ni ku nekk ci marché yëpp sa jëkkër lii Alioune Tine ci fa sobli ne gis nga député Massata Samb ci boppam moo amatul place ci assemblée nationale ginnaaw jëfam gi démb ca penc ma laa tur yam gisaguñu ko de enquête ne ginnaaw raak bi doon démb ci assemblée nationale beneen mbir a ngi yëngal démb assemblée nationale ci jaar Ismaïla Madior Fall di coowal ñetteelu mandat bu njiitu réew mi Macky Sall Sud Quotidien ci Guy Marius Sagna moom mayu leen Ismaïla Madior Fall ndaxte démb dañ ko ci coowal ñetteelu mandat bu njiitu réew mi moom Ismaïla Madior Fall ci laas nii du moom mooy wax yoon waaye na conseil mooy atte dëgg ci coowal ñetteelu mandat leeral sa taxawa ci ñettelu mandat bu Macky Sall ndax loolu lañuy xaar ci yow yow ministre de la justice le témoin ne démb kay Ismaël Major Fall ci buñ kay votel budget bi dara seetul ci koom ndax muy Aminata Touré di Guy Marius Sagna ak Barthélémy Diaz kel ci ñom may ko fu mu yexé nakam la lay wax ni critique enquête Vox Populi ak L'As ni pop Alé ñaan nak tay ji ci aduma gi lay door grève xifal ci prison gu mu nekk Sébi Sébikotane bés bi la journée Reporters sans frontières nak ma ngone dem ci Sébi Sébikotane ngir amal visite ci pop Alé ñaan waye nak seen sàkku teef moo di nañu bàyyi taskatu xabar bi pop Alé ñaan ci lu gaaw la lay wax ni ndax ta gaay nee nañu taskatu xabaar bi place am du ci kaso bi li war deug nak moo ñu bàyyi ko par la force doole mbaam libération ne rapportu audit 2020 jàpp 2021 bi dal lu mu fësal doy na ndax ay njuuj njaaj ay mbuuxum deug lañu ñu nemmeeku ca PENA ci mairie bu Malika ci ministère de la culture ci Dakar dem dik ci mairie bu Hann ak ci DER ndax ñom ñëpp la japp jàpp loxo ci poos l'observateur ne demal sapko PENA ba ci Dakar dem dik ndax ñom ñëpp ay surfacturation lañu jappé ay dépassement budgétaire ak mbir yo xam dal doyna war le soleil ne juróom-ñaareel ginnaaw bu ñu doore liggéeyu université Amadou Mahtar Mbow lepp nopi na te dembal ko njiitu réew mi Macky Sall inauguré ca jam ñaajo la tribune ne Souleymane Ndiaye nag dal na ci kaw Aminata Assome Diatta jëwriñ gu ñu dénkoon wàllu ñene meeg njaay mi ci Sénégal ginnaaw kàddu yi nga xam ne moom jëwriñ gi yëkkati ko ci réerub Didier Badji ak Fulbert Sambou Souleymane Ndiaye ne génnu Aminata Assome Diatta mi c'est maladroite et opportuniste Souleymane Ndiaye ne Aminata Assome Diatta kay taxawaay bi mu di daal jaaxal na ma te génnam gi tegu ko fenn la wax ni sunu bëgg-bëgg dëgg nag mooy indi coupe bi waaw waaw Le Soleil ne gayndeekee ak confiance dëgg la àndal ci sunu jonganteeg Angleterre dimanche gi ñu dëgmal juróom-ñaari waxtu ci ngoon bés bi la journée benn sàngara mooy def musiba dëgg ci Podor waxtu wi te sàngara si bul faale la tudd ginnaaw musiba gi muy def ci Podor préfet bi teg na ci loxo waxtu wi ba dakar nañu njëriñ meeg ci Podor ay waay lii tamit mbaa jàmm la ñu bàkku ci kaw Eumeu Sène lii nag mooy laaj bi réew mi quotidien ak GP yéene kaay ni Mor Seck ñu gën ko xam ci jantal Mara léegi bat Mara la ndax mu ngi ci kaso bi te escroquerie lañ koy toppee mais da ngay seet loolu rek